Il ne peut moom mu wax ko taxaw télé ñëpp dégg ko waaye waaye kii moo kii moo bëri compte wax ko bi mu buggee deuxième mandat la taxaw ci kanamu Sénégalais yi ne waa nit ñaa ngi wax ay troisième mandat man constitution bi leer na constitution bi nee na nit mënul def lu weesu ñaari mandat li ma laaj Sénégalais yi mooy nañ ma jox ñaareelu mandat mu doon dernier mandat. loolu est-ce que am na ku ko déggul ci ñun ñi mu àndal ñu bari ci ñoom taxaw nañu wax loolu ñëpp dégg ko à commencer par Ismaïla Madior Fall waay waay est-ce que sénégalais yi dinañ ñàkk fula nag ba ñuy yàpp ñu war a ñëw taxawaat ne dañuy forcer fii beneen man la ce que loolu dinañ ko nangu noonu mu amee woon ci neen réew bi mu amee Amérique dafa andi coow lu rëy. ba ñu def li ñuy wax guerre d'indépendance guerre de sécession ay bakkan yu dul jeex rot fa waaye bu ñu ci jógee la waa Amérique toog daal di def benn constitution constitution boobu mooy dox ba léegi ñëpp respecté ko Amérique ku def ñaari mandat takk nga say bagage dem sa yoon te ñaari mandat ñeenti at la boo leen boole muy juróom ñetti at ñëpp xam nañ ni président yu bëri ci Amérique bi ñuy dem liggéey nañu ba américain yi gis waaye sañu ñu ne ah comme liggéey naa jox leen ma beneen mandat Barack Obama sañu ko woon Clinton sañu ko woon sañu ko woon yow nga ñëw fii ñu jox la réew ñaar fukki fan ah, ah, at ak ñaar defoo fi dara loo xam ne réglé na problème mu Sénégal waaye li gën garaaw nga yàq réew mi ci jikko mooy fexe ba di féewale Sénégalais yi fi waxu xeet. waxu diine andi fi waxu waaso lépp nga bëgg a nguur rek sa bilan économique dara baaxu ci jël justice di ko utiliser di dóor nit ñi di tëj nit ñi ak di rey nit ñi ba pare ne forcé nag tey dinaa toogaat ci boppu réew mi soobee yàlla du am de bu soobee yàlla du am kon li bay daane ne mooy li si ñoom papa yu baax yi wax di ko wax sama mbokk jeunes yi yàlla xam na ni yéen yéen ñu tax a xeex yéen rek yéen ñu tax a sonn yéen jeunes yi yéen rek yéen ñu tax a ndax xam ngeen li tax ngeen ngeen tax ñoo sonn defaluñu leen ko yënde mais dañu xam ne su ngeen baax les Sénégal baax mënuñu am cinq pour cent de jeunes ñu marginaliser marginaliser leen ñoom ñu toog. nekk ci ay jafe-jafe mënaluñu seen bopp mënuñu jàppale seen waajur ñu foog ni Sénégal mën naa baax bis bu ngeen baaxlee rek senegal baax waajur yi noppalu économie bi développé ngeen fay lémpo état bi am xaalis bu mu mun a defaree li mu war a defar moo tax ku ñu sàgganee li ñu am chance la dem leen ngeen bindu ji dem leen ngeen récupérer carte d'électeur yi na ngeen waajal seen bopp ci bépp